bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walaqibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala alzalimin walsalaatu walsalaamu ala asrafi almursalina sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabiina lahum bi ihsaan ila yawmi ddin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkale si weeru koor bu tedd bi euh, depuis timis ñu ngi doon def ay recherche lu jëm si weer bi euh, njëlbeen bi am na ñu ma woo ma soxlawul ñuy xool sax comme sawu suba ñoom julliwuñu suba ma ni leen bokkuñu euh, ku nekk ak gis-gisam la euh, ñu nekk di laajte di demee ndànk am nañu ay xabaar yu bari yoo xamee ne fii suñu jëmee si biir réew mi fii am nañu dëkk bu ñuy wax Diobé mu ngi nekk booru njum kaw njum vingt kilomètres de njum foofu imam bi mu ngi tudd Haruna Diop moom si boppam waxan wax naa moom téléphone nee na ñoom gis nañu weer bi foofu moom ak waa ay këram euh, ginnaaw gi daaxa sal wooma ne ma dëkk bu ñuy wax Dubaange foofu tamit si boobu diwaan la rek soriwul ku ñuy wax Moussa Ba woo na ko nee nañu gis nañ ko foofu kër yu bëri lu mat juróom-ñetti kër gis nañ ko foofu euh, Wuromale tamit gis nañ ko euh, foofu euh, ki ñuy wax Hamadi Kajjatel gis nañ ko foofu euh, ak Hamadi Ba ñoom tam nee nañu mbooloo mu rëy lañu fii si Sénégal ginnaaw gi ma jokkoo kook beneen commission bi li leen laaj ñoom tam ñu ne ma Kaolack wetu Kaolack am na dëkk bu fa nekk ki ko gis ki ñoom xam nañ ko doy na leen ñu ne ma dañ may jox numéro téléphone am man de leen soxlawul comme doy na leen rek man tam doy na ma. kooku jotuma wax ak moom mais ñu ne nañu kooku ak këram waa këram yëpp gis nañ ko ginnaaw gi ma woo Mali suñu waajur bi fa nekk ci Ceerno Mahi Tall mu ne ma moom tam gis nañ ko Mopti Gao Tumbuktu eh, am ñi ma jox information Côte d'Ivoire tamit gis nañ ko foofu Niger gis nañ ko foofu kon nag lii jamaa mustafida la mbooloo mu rëy la ñoo xamee ne wuute nañu bokkuñu fu ñu nekk kon ñun day décidé nañu euh, ëllëg incha allahu duñu woor su soobee rabbi dañu arrêté fii koor gi di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla nangul e ñuy continuer yi tamit yàlla na leen yàlla nangul euh, doylu rek la ku si doylu jullit nag dañu war a doylante euh, ñun lii doy nañu incha allah waxtaan naa seeg xalifa bi mu ne ma jëlal sa responsabilité yow yaa xam noo koy waxee wax ko incha allah ma ne nag comme man maa waxoon ñu woor maa ngi waxaat tamit ku mu doy ah, mun nga dog ku mu doyul tamit mun nga xaar ba beneen bës boo xamee ni am nga si certitude nga dog ndax woor ba su ko julli eh, su su su wóoree kooku moom dañ ko dañ ko tere incha allah di ñaan yàlla yàlla nañ yàlla nangul di jéggalu nag si responsabilité bu rëy bu toll ni di ko jël di wax mais man tam dama doylu rek yaakaar moo am kon nag maa ngi leen di wax ku jot yëpp na jottali keneen ñu bañ di woote nga dégg ko ba pare di woote waat di wax ne man de eh, dégg naa diw mu ngi wax ne nee na wax nga li eh, li ma wax li man maa ko wax ku ko déggu nañ na jël audio bi yónnee ko ñu bañ di fanaana woote ba fajar toog di woote ba fajar lii doy na incha allahu yàlla nañ yàlla may fekkee déwén yàlla nañ yàlla jéggal